jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ As sëñu saa jërëjëf Mbàkke ñu ngi lay jégg bu baax jotaay bi yàgg na lool waaye dama am ku ma dégg mu ne suñ mbakki Madina nee na miinul Moustapha mu jëful lu ñu naw la wax waxul amut de nee na Moustapha mu mu miin rek su jëfee faawu jëf ja nawees ko kon man xamoon naa naka jekk waaye gën naa laa naw ci sa kàddu yi xoolal suñu blaat nee na murit gi siti la day toppe ba ciy sët loo fi gis rek ca ba woon dara neenut yow li nga wax ci Baye Modou gëm nañ ko ngir say kàddu li nga wax suñ xas suñ bay jaxate nee na kër goo fi gis mu jub kilifa gaa jub ñu ne ko li tax mu ne ngir picc sax sabinu baay balay sab waa gannaaw picc moo am ku toll ne xool na baayam doon sabe mu di ko sabe walis kon doomu aadama mi nga xam ne dañ koo togg jëf ah. mbàkke yow la sëñ bay jaxate waxoon nee na yëg ku yëg mbindéef yi waaw daf ne yor njariñal nit ñi di leen laafaale doo ko saxoo fenn ñu bañ laa faale yow foo nekk faale si la ala kulli haal ku la xam ku la xam dina nangu sag mbaax dina nangu sag tabe dina nangu moo ko doon lim du jeex ndokk xaasim mii nag yëg gi mu yëg mbindeef yi dañ ko yëge sëñ bay jaxate moo ne ku yëg mbindeef yi buur bi yàlla yëg la waa ku yàlla yëg yéege la nit ñi weg la man sëñ sëñ Abdou Samane Mbàkke moom sëñ soin bu ci moom laa njëkk a dégg turu xaasim Sarr moo woo Seex Mbeng mii ne ko alaaji sekk laa bëgg ngeen yóbbul ma ko Maayomba ne ma ana alaaji sekk mu ne ko maa ngi nii mu ne ma am nga passeport ma ne ko waaw mu ne ma askana ko jox ko mbeng mu yóbbante ko xaasim saar may dégg ci moom xaasim di dégg ci moom xaasim jàpp ne xaasim paala boo xam ne maanaam man bi ma njëkkee gis xaasim wóor na yàlla damaa defoon ne xaasim waaw ah barki sëñ loolu laa foogoon di def moo gisee dama ne kon kii mooy xaasim mais damaa jàppoon ne xaasim maanaam kilifa la goo xam paa bu comme xamu ni ma inimaginable eh, waaw kay kàddu gi waaw léegi nag li sëñ saa waxoon bu ma ko rappatawaatee day gudd te jotaay bi yàgg na mooy cant gi ak ngërëm li cantu cant gi daanaka fi ñu toll mat na ndax kenn nit mënul dara lii nu fi doon nii xewloo képp xaasim yi bu ko bëggoon def ci loxoy boppam du sotti kon soxna yi ñoo ci taxaw soxna yi su ma ko waxee ñëpp ci lañ bokk soxna ay satu mi soo gisee ma di ko di ko jiital ci cant gi daa munta ñàkk ndax xam nga àll àll ba nudde waaye àlle nag baaxut teew ngoom àlle woo àlle woo de barki sëñ Tuubaa ñu bari dañoo nekk ci àll bi mujj ñu dépassé seen borom kër maanaam ëpp ko capacité xam nga lu koy waral mooy fañ la yemoon fañ la yemloo da nga koo dépassé fañ la yemloo fa nga yem hmm? affaire bi su ma ko tuddee gars yi dañuy rey mais da ko man de barki Sëñ Tuubaa yëpp la man yëpp la man ceebu jën ak eh, kii eh, poulet de kii ak yëpp la man man bu ne defal na ma ko maa la wax yëpp maa ko torkal la sëñ Moussa Si la midi pile mu ne ma sëñ Alaaji kuy jëlaañ bi ma ne ko kenn man xaasim na toog ëgmandi ko ñu ko déedéet dañ koy jël si bu ñëwee gars yi mujj gi dañuy ñëw dañuy naan si kafe la ñuy wax dañuy añ si parce que xam nañ ni añ bi bu ñëwee dana neex dana doy kon li nga xam yàlla na barkeel yaag ñi nga seqal liggéey suñ tubaab bi ñëpp la taxoon say waajur jël la daal teg la ci loxoom yàlla buñ ci rëccu dara léegi nag sëñ Mourtala mii nga xam ne bu bu yàgg ba tey mi ngi ko ànd ak noonu nee na am na loo xam ne bu ko déggut image du jàll te ba ba waaw xam nga tawféex tawféex la te te te ba daa baax rek waaye li mu fi dégg ci baay baal ci baay boole dégg ko ci baay jili drame nii dégg ko ci keneen ak keneen ak keneen wir ni ko ni alaaji sakk mënu ko waaye bëggum bëgg mën lebul fawsé nii nag moo tax mu ne bu ci déggul ay bayit du jàllale mbir mi kon xam naa ñu def ñetti bayit te jox ko te jox soxna si mu ñaan eh, xaw ma bu dee ñaan nag nu ko suñu aas waxee suñ mortaala waaw بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بإليس العلا ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من صلم كل سالم وسر كل جائل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل خائل وكل سائل وكل تائر وكل معصي وكل قامل وكل فاسي وكل عاصد وكل صاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن ما سيطان المريض وسر القرب وسر الناء والأر والبرد وسر الماء وسوي الدنيا وعيتني أبد وطائرا قلبي وسائي جذت وهب لي القيام في ليالي وصوم في نهار بالإكمال وقال أني من الرسائل وكن مجملي بالفضائل وذكي لبي وافتأ ربي ليا فتأ مبينا لا يرى لمثليا واليوب على خطر ونورا وفي صراط يسر المرورا وهب لي سكري بسكر كل غين وعدني من جملة المخربين ولا تزل يا مالكي دليلي واسبني وكن قليلي والتصرفي صلاة لي صعب أن آلي وهب لي الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين képp ku xas jóg ñëw fii te yàlla nay mbiram jàkk mu mucc cim ndox am ndam forub dox nu déggoo ba noppi juboo am nga neen am xorom te wér gudd fan am lu kenn muslaam ñun ñëpp yàlla musal nu ci musa ak balaa kasara gàtt fan ak deegu ñaaw saxal na faw ci liggéeyal Cheikhul Khadim yàlla xeer ko ci lépp luñ ko liggéeyal mu nangul nu ko sëñ sëñ sëñ xaasim nee na sëñ Mourtala mii la bëgg soxna maam Issa gën koo defal ak ñaan nee na daa bëgg site bii mu yore suñ borom defal ko tawféex ba mu wuyu tur nee na nag te ñëpp abonné ci kon sëñ Mourtala da ngay jël rajo bi bu ko defee demaale ok jërëjëf sëñ Alaaji Seck tawféex te rek yow saa waaye nga jéggal ma ko rek maa la ko ñaan dégg nga yi ngeen di présenté soxna si ànd naag moom barki dem boo rek ba sar saara liggéeyal ko fa liggéey bu rafet macha àlla xam naa soxna si dina ko gën a ñaanal ba soobee yàlla sinaas man de li ma def te jii su réewut ak nañu defoon waaje ca nawetaanam ba daa ñëw ne daa bari xam-xam lool ñu ne kon suñ jàngi ren yaa koy waxtaan waaw jàng yi ñëw ñu jox ku mel ne sëriñ ab Lo Guèye mii ne ko yaay dalal sa waay comme daa bari xam-xam moom may def waxtaan wi ndeke waa ji tuuti la xamoon lam jotoon na xam lépp ab Lo wax ko ba noppi ne ko bi bismillah ak jaaxle dikkal ko mu ne gaañi ndax li may bëgg a wax xam ngeen ko gaañi ne ko déedéet mu ne kom xamul leen ko jërul wax ba déwén ca déwén sëñu del siwaat ne ko comme daa waxtaanoo ren nag moom ku ñuy wax sëriñ Abdou Lahad Dieye moo lay dalal sëriñ Abdou Lahad dikkati jaarate fa raw fa laat ji fa laaj loo jaaroon waa ji jaaxle dikkalaat ko mu ne gaañee ndax li may bëgg wax xam ngeen ko comme bee dañ ñu ko woon déedéet tey ñu ne ko waaw xam nañ ko kay mu ne nit ki li xam nag jëru koo wax kon ba déwén ca déwén sa gaañe na dañuy def ñaari xaaj bu ñii nee déedéet na ñii ne waaw waaw mu dikkaat ñu daal jox am baay seex denk mu dalal biñ ko ne sëñ bi bisimilah mu ne gaañu man de man ndax li may bëgg wax xam ngeen ko xaaj bii ne ko déedéet xamuñu ko de xaaj bii ne waaw xam nañ ko kay mu ne yéen ñi ko xam wax leen ko ñi ba ñi ko xamul ba déwén man li ma waroon na wax kon xam naa gaañ ñi Ablaye loo wax nañ ko kon xanaa ba déwén rek soxna maam Issa Mbakke day keppaaru ngëneel goo xam ne ku ca taataan aw mar dootu la sanal mbooye du la fitnaal xam nga lu tax soxna am yi sa day roote ci Serigne Touba di sotti ci Serigne Touba ma jóg di kañ soxna su baax soxna maam Issa Mbàkke rek a baax lu def lu ñaaw te du ko wax daa sax ci ndigal def lu baax doon ab murit bu am ngërëm ci yoonu Cheikh Bamba ak jëfam nangoo defal ci ay nitam soxna maam Issa Mbàkke am nga ndam maa ngi dëggal samay wax ci soxna maam isa mii du ay nax dafay ko baax ñépp a ko wax soxna maam sa Mbàkke am nga ndam góor ak jigéen mag ak ndaw ku bekk ci lii yëkkati sa loxo ca kaw ndax yàlla xéewal jëm ci kaw ñu delloo njukkal soxna maam isa Mbàkke sinaas euh, li tax man ndey keppaaru ngëneel ba tax nun ñi ñu daw làqatu ji ci wetam macha allah xam nga lu tax benn waaye dafa jóg di dox ab sàcc la nag sàcc waaw benn waaye sàcc la nag waaye nag du sàcc lu dul galaas galaas képp lay sàcc amu soxla ci leneen boo tegoon ay milliards ci wetam du ko laal waaye galaas la munta muñ fu mu ko fekk sàcc bis suñu jàpp ko ne ko yow mag mu toll ne yow mënoo liggéey wala boog booy sàcc sax boog nga sàcc lu la amal njariñ loo xam ne boo ko jëlee boo ko jaayee mën caa jariñoo mën a leen da a juum man sàcc ma ngir lu may jaay ñu ne kon looy doyee galaas guddiis gi mu ne boroom xam-xam yi ñoom Abdoulaye Lo Guèye ñoo wax ne yawmal xiyaamatul akbar yàlla day wàccee jant ba mu jege nit ñi tàngaay wi di leen bëgg a rey mu ne nag dégg naa itam ñu ne la waaye sàcc bu boobaa moom lañ lay yen ma bëgg su ma sàccee galaas bu ñu demee yawmal xiyaam ñu ma ko sàcc bu am fulla la keppaarug yawmal xiyaam lay créer nun keppaarug yawmal xiyaam googu noo ngi koy créer ci wetu soxna Mbakke jërëjëf sëñ As sëñ Xaadim euh, sëñ Xaasim Sarr nañ ma baal fi ñu ma joxe micro bi daa xaw a xat ci man te la daloon jineex ja def maa dab ci diggante bi dañ ko ne nan la xar kanam muus mel dañuy wax dëgg yàlla jotuma koo seetlu ndax fi ñuy daje day xat te ci fitna lay nekk ba keroog ñu tàqali ko du ma ko yëg waaye yow ku la bëgg la ndax bi may dégg tur yi damaa defoon ne magum juróom-ñaar fukki at la loolu nag du ma bett ci yow ndax man damaa nekkoon kaw Kaolack ci rajo bu ñuy wax Lamp Fall di fa liggéeyee ku mel ne Baye Cheikh Mbengue mi di ma dégg di ma woo téléphone ba bis mu ne ma damaa bëgg a fasanteegee wóolu la rek wallaahi la sim ba fii ma toog di wax yow gisuma góor gi waaye chaque jour ma jot addiya moom bi mu ñëwee yàlla dogal ñu def benn programme comme bu mel nii ouverture rajo bi mu ne ma ndax yàlla su ñëwee ne fasante wale kóllëre ma ak booba nag at yi gën naa néew nii tuuti tamit ma sol benn t-shirt benn pantalon rek di corox coroxi ci biir nit ñi dama ko ñëw moom nag borom daraa yi wàcc borom béja bu mujj wàcc mu defee ne kay Mortalla Kane ba yàgg rek ñu ne sëñ Mortalla Kane bismillah ñu commencé programme bi ma dem jël micro bi ne asalaamaaleykum mu ne ma naaj sëñ Tuubaa ne kii du ma teg bët ndax jàppoon naa sama morom laay waxal nekk sama morom doom laay waxal ba fii may waxee yow gisuma góor googu waaye nag chaque jour ay teraangam day ñëw ci man kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal moom it Euh, dina sant bu baax di gërëm ci tiju kawe ji nga am ak bokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal liggéey bi dama ne woon sax du ko jar waaye ah lu ko lu lu ko dul jar jaru ko waaye lu ko jarit nag jar na ko kon dañoo sant yàlla bu baax ci lii ngeen ñu ci boolee ak tawfeex ji ñu ci yàlla boole. bi ngeen keree Karawane euh, yomba sunu way juru bopp wee nga xam ne kenn la ci noonu di soxna Maam Isa Mbàkke moo nu tàbbal ci biir groupe bi maa ngi ci biir groupe bi bu yàgg ba léegi kii ku mu boole ci mbir la nga cay doxe mooy yar ak i teggin ndax saa yuñ ne laa yow keppaaru soxna si ngay sosi rek war ngaa xoolaat ni ngay def bu baax a baax kon noo ngi koy ñaanal bu baax yàlla meek fa nu gudd ànd ak wér yàlla mu musal ko nag yàlla na ko yàlla aar te sàmm ko muslaay kat laa koy ñaanal ndax rab woowu ñuy wax janax xam ngeen ko jënax ba mu fi sob sob la ba dem ca góor gi ne ko damaa bëggoon bàyyi re te ma laa wutal muslaay rek mu ne ko déyoo ma ko dara bayere laa bëgg góor gi defal ko mu sangu ba doyal génn ne tël rek yam ci juróomi muus siiru yee xéeru mu wàññi ko dikk ne ko nañ ko for foofu mu def ko muslaay moo gën kon muslaay lu baax la fi may daanee la sama kàddu tàllal ko suñu loxo mu ñaanal nu Mbàkke yaaram dama bég ci moom bu ma jàkkaarloog moom de jotaay bii nag dama ko gëj ci moom ndax lin may yónni daa bare te ma bëgg ko lool yàlla min tim sama lépp la waaye maa ngi giñ ci Serigne Touba ne ñu baree ma ko gën a ñeme barke Xaadimul Moustapha dama ko jox cër waaye nag man yàlla damaa bindee noo xam ne ku sant Mbàkke nga bokk ci Serigne Touba wala mag mu sëriñ Touba ya yar wala ngay jàng jàngkatu xasida wala may gis la nga teg ci yoonu baax waggar gi ma lay waggar maag yàlla dong ko xam ci sama xel ak sama xol barke Xaadimu Rasuul Serigne Touba seere na lool waaye moom mi ne da ca raw su ma demee ci saalam di ko nuy ji fi ma sukk sama bët moom ci buntu ne ci buntu saal bi du ma ñibee du ma ñemee sigg sama bët bi tekkee ci moom bu may ñaanal rek ma arrière ndànk génn dem xam naa sax léegi-léegi dinaa jàpp ne te mu jàpp ne ak manque de yitte la déedéet ragal gi la mbàkki ma ko ñemewut te noon la kilifa da nga koy wa da nga koy waggar wekk ko sopp ko sutural ko ba noppi nag taxaw ci wetam bëgg ko lool koo bëgg mu bëgg la dangay bëgg li bëgg koo bëgg li mu bëgg mu bëgg la nga bëgg waaye nag koo bañ la mu bu ko neexee loo bëgg mu bañ loola soxna maam isa daa bëgg lu baax ku bëgg lu baax mu bëgg la lii moo ko boole karawaan maa yomba fi may daaneele samay kàddu mooy ndax wala fi dañuy wax ne ku xiif daa yàkkamte dégg kaay raxasu te kalaasu sëriñ Ablaye Lo gi li waxtaan wi neex neex bëgg nañoo dégg kaay reer imaam ji sant sëy bi ñu ko tegalee ndabul reer waxtu guddi ñu teg ko xaw reer bi guddee tuuti muy jiima jaay dëgër lu ne gaa yi ni leen julli gee doog reer ndekete bool bi juróomi ginaar a ci ne daa kàbbar rek am muus jóge fale ndekke kubéer gi baaxut ñëw gàddu genn ginaar dem mu def ñaareelu rakka muus mi baadoo la ba dee dikkaat jëlaat geneen ginaar dem mu toog jub jóg di indi ñetteelu rakka seen muus mi ñëw ànd ak yeneen ñaari muus te ñetti ginaar bi des mu tàpp pooj bi tàppaat pooj bi tàppaat pooj bi naan ji dagg julli gi ñëw bool ba mu dëgg teg ci kanamu imam bi imam bi taayee sëlmal muraam jàkkaaroom na ko yaaram baa yàqu ma julli gi mu ne ko yaa ko defar waaye gars yi defar ngeen màggal gi wasalaamaaleykum wa ba léegi sëdëb sëñ Tuubaa nekk ci sunu kanam toog toogaay boo xamante ne bii buñ demee ba ba mu war ñoo ñaanal kon yell nañ làmb àddee sëriñ Tuubaa dajale ko fii jox ko ngir mu ñaanal lañu ko bismillah ko dajale noonu ma ko waxee euh, soxna si nag sëñ Cheikh day yóbbati nee na sëriñ Fallou Bousso ak soxna am Diarra mi mu àndaloon liggéey bi dañuy sàkku nga dugal leen ci biir ñaan gi ndax nee na lii kat bu dee law ba yegg si fii yàlla amul lenn lu muy def te jaaroo ko ci ay jëmm ci ñoom nag la yàlla jaarale lii nee na kon mi ngi sàkku xaw ma da koy joxe ab dog ñu def ko xaw ma da koy dëxañ ci biir ñaan gi waaw kon nañ def ginnaaw faatiha ku nekk fukki alaas ak benn ñu tëju ko salaatu ala nabi ni ni nga xam ne ab sëriñ sañ naa ñaanal ab dong ab dong tam noonu la sañ lool mbàkke te wér lool ba liggéey bi liggéeyal sëriñ Tuubaa fa mu ko bëgg yóbbu moo ko xam mu àggale ko fu kawe njortam mbàkke yaaram amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin amin mbàkke amin yaa rabbal alamin amin amin yaa rabbal alamin amin mbàkke Seex Mbay nga jërëjëf amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin